waaw salaamaaleykum mbokk taalibe yi salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àddina ñu ngi leen di siyaar di nuyu suñu mbokk internet yi nga xamante ne ñooy ñu suivre fii ci SBT Média tey nag ñu ñëw fii ci Touba dëkk bu sell bi dëkk bu yiw bi mu mel ni Serigne Saliou Mbacké xalifatu général am joxoon ndigal Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou bi nga xamante ne moo tabax lu sell lii lu rafet lii muy jumaa janatul maxwa tey nag mu nekk bés bu rëy ci lislaam nekk ndam ci lislaam nekk ndam ci yoonu murit nga xamante ne tey moom la Serigne Saliou Thioune taawam bii doon ko war a ubbi jumaa ji ànd koog Serigne Cheikh moom Serigne Saliou mu ne lu rëy kon tey maa ngi jox rendez-vous mbokk mbokk ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan fii ci SBT Média ñu bàyyi ci xel xam ne tey ndamu lislaam la ndamu yoonu murit la ndamu Sénégal la jërë ngeen jëf. waaw waaw jërëjëf Serigne Saliou mu mel ni mbokk yi Serigne Saliou ndigal cuun moom sëñ Bajo mooy dugg nii tubarkàlla nee naa la ànd ak euh, ànd ak mbooloo mi mu mel ni dugg si bi xaw naa métti lool xaw a xat Serigne Saliou ndigal cuun mi nga xamante ne moom la Serigne seex jox ndigalu ndigalu ubbitu jumaa ji waaw. waaw waaw waaw waaw mu mel ni mbokk yi yéen a ko gisandoo Serigne Saliou Thioune ndigal nga xamante ne nii moom la sëriñ Cheikh mbakke jox ndigal li nga xam ne mooy ubbi jumaa ji waaw ñu ngi nii taxaw ci buntu di xaar ànd ak sëriñ Saliou ndigal Thioune mbooloo mi xaw a xat lool waaye nii la lislaam a ko toll yoonu murid a toll noonu jumaa jee toll noonu. waaw waaw mu mel ni comme comme ni ma ko waxee rek nee naa la lislaam am ndam jumaa ji am Serigne Touba am ndam ndax lii ku ko dégg rek ndax Serigne Saliou ndigal cuun ndeysaan mooy moo taxaw nii war a ubbi eh, eh, eh, jumaa ji ndeysaan yàlla fi yàgg lool te gën a wér waaw day mel ñu ngi nii taxaw ci buntu jumaa ji di xaar ndax Serigne Saliou ndigal ci woon taawu Serigne Béthio bi war a ubbi tey jumaa ji nga xamante ni mooy ndamu lislaam di ndamu yoonu murit nuyu siyaare Serigne Cheikh Mbacke di ko ñaan mu yàgg fi te gën a wér di ñaanal Serigne Mountakha Mbacke mu yàgg fi lool te gën a wér ndax jumaa ji nag tolloon ci en 2005 lañ tegoon xeer bi 2007 liggéey bi tàmbali mu mel ni tey ñu ngi ci 2020 war a tombé ubbi teg jumaa ji fii ci Jannatul Mahwa ànd koog Serigne Cheikh Mbacke. moom Serigne Saliou nañu jël plan wu njaareem kon mbokk yi nee la mbég mi moom foo ko nattuwee sunu ko tey ñu ngi siyaare mbokk jullit yi siyaare mbokk taalibe yëpp di ñaan ci barkeb Serigne Saliou Mbacke Iboutou bii yàlla na fa yàlla def Sénégal def ko ay yiw ñoo nekk si diaspora bi ndeysaan ah nekk ay cantaakun nekk Belgique ñi nekk France ñi nekk États-Unis ndeysaan si àdduna wërgal këpp Ah, sëriñ sëriñ Béthio liggéeyam àgg fa ci barkeb sëriñ Saliou kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di siyaar ñëpp koo xam ne si ni ah, candaakun nga waaye képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah ñu ngi lay jaajëfal baax den wax ne SBT Média la tey ñu ngi fii nii ah, ànd ak jëwriñu Souleymane Badiane ndeysaan mu taxawee liggéey bi ndeysaan ñu ngi noonu waaw kooku Seydina Thioune la ànd ak sëñ Abdou mi nga xamante ne nee naa la mooy imaamu candaakun yi ndax moom la sëñ moom la sëriñ Saliou daan yebal julli it muy ñëw di ko di ko di ko di ko jiite gaa yi tey daal fu waay sànni mbattu mu takk ngeen ànd ak seen doom tombik ubbi gi muy ndamu lislaam di ndamu yoonu murit nee naa la ñu ngi siyaare ci mbokk taalibe yi ca daakoon yi nga xamante ne ñu ngi suivre SBT Média nekk nekk nekk nekk Allemagne nekk Italie waaw fépp monde entier fépp bu fi nekk rek ñu ngi ñu ngi lay wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu muhammad rasulillah ñu ngi siyaare ñëpp waaw mu mel ni Seydina Thioune na ci bunt bi noonu waaw di dugg mu mel dugub bi am na melo lool tey waaye noonu la Serigne Touba toll nii Serigne Saliou woo ni toll Serigne Touba ni toll yàllaa ni toll noonu faaw mu am raj lañ loo ñu ngi saari mbokk yi nga xam ne ñuy suivre seen chaîne SBT Média nee naa leen ku bëgg di seetaan saa su ne li SBT def da ngay da ngay abonné ba sa cloche notification bi mën di seetaan li nga xamante ne SBT moom la ñuy jox sénégalais yi ak mbokk jullit yi ngeen jëf. waaw mu mel ni bunt bi bari na rëj-rëj lool lool tey ndeysaan ndeysaan waaw mu mel ni sëriñ sëriñ Seydina Thioune dugg noonu ànd ak njabootu sëriñ Saliou gi waaye mënta ñàkk mu am raj lañ lool ndax yàlla toll noonu waaw li may ma leen koy fàttaliwaat rek ngi muy jumaa ji nga xamante ne moom la sëriñ Saliou Mbacke joxoon sëñ Béthio Thioune ndigal mu tabax ko plan bi dëppoo plan wu njaareem waaw mu mel ni depuis 2007 ba 2020 mu mel ni tey tombéeg ubbite bi. ñu ànd koog njabootug Serigne Saliou gi ànd koog njabootug Cheikh Béthio Thioune gépp maa ngi ziare mbokk taalibe yi ca Ndakone yi fu waay nekk waaw fii ci seen SBT SBT Média ànd koog Diorin Diorin Matar Ndiaye. daa ni moom mooy moom mooy ñëw nii waaw porte parole yoonu murit ndeysaan Mbacke waaw mi ngi ànd ak njabootug Serigne Cheikh gépp waaw mi ngi ànd doomi Serigne Cheikh yi waaw Cheikh Bass Abdou waaw moom mooy dugg si sëñ Bass Abdou ànd ak njabootu njabootu njabootu Serigne Saliou gi tey daal tey daal fu waay sànni mbattu mu takk ndax ndax nee naa la lii moom mooy ndamul islam di ndamu ndamu ndamu àddina mu yëru murit waaw Serigne Saliou ndigal cuun ndamam li rëy na ñu ngi koy ndokkale di ko siyaare bu baax a baax jërëjëf waaw sëñ Bass Abdou Khadir mooy dugg noonu ànd ak njabootu sëñ Cheikh gépp waaw mooy porte parole yoonu murit nga xam ne ne moom la sëriñ bi yebal fii tey ci ubbite jumaa ji ñu ngi koy siyaare bu baax a baax a baax a baax Mbacke waaw ñu ngi siyaare ñi nga xamante ni ñu ñu suivre nag si suñu chaîne SBT Média ndax nee naa la tey c'est du lourd waaw man kook sama jëwriñ Mathiane Ndiaye mel ni ñu ñëw fii ci tubaa ci ubbite jumaa ji waaw Serigne bas Abdou Khadre mooy dugg noonu buuxante bi mënta ñàkk ndax Serigne Touba ni toll lislaama ni toll Serigne Saliou ni toll ñu ngi siyaare mbokku taalibe bi yëpp isaan. Euh, yeggali liggéey boobu mu mel ni ubbite bi tey tombe tey ci weeru safar waaw mu mel ni lu lu xew ci ndax Serigne Bass Abdou Khadre porte-parole yoonu murit Serigne bi yebal ko mu ñëw ci waaw mu mel ni noppi nañu julli euh, saan gi fi mu ne ñu ngi taxaw di xaar ci bunt bi ndax nee naa la fii la sëñ Bass Abdou Khadre duggee woon te xam naa ne fii lay kon mbokk yi ñuy suivre SBT Média nee naa la saa su lay demee dañ leen di won li nga xamante ne lépp moo xewoon fii ci jumaay Jannatul Maxwa ji xam naa ne ñu teewlu tuuti rek déglu waxtaan wi jërëjëfati Serigne Touba. kii yéen a ko gisandoo sëñ Bass Abdou Khadir moo jóge noonu mu mel ni ànd ak njabootu sëriñ seex gi tey dem nañu ba ndeysaan euh, boo déggee li ci biir nga xam ne ni yoonu murit nii la demee dem nañ jox jox ko ñaan gi ndax ne nañ ko yaay sunu mag yaa war a ñaan kon ñu teewlu ñaan gi ñun ñëpp rek. waaw fii ci janatul maxwa ci jumaa ji nga xamante ne ma koy fàttali Serigne Saliou moo ko joxoon sëñ Béthio ndigal en 2005 mu tabaxal ko jumaa ànd ko ak Serigne Béthio tey jii ñu dem ba Serigne Saliou taawam bi ne ci liggéey bi ànd ko ak Serigne Cheikh Mbacke taawu Serigne Saliou kon duñ def lu bëgg waaw di ñaanal Sénégal jàmm di ñaanal réew mi jàmm di nuyu nag surtout waa diaspora bi nee naa la ñu ngi suivre SBT fii ci site bu mag bi saa su ne nii lay demee waaw ñu ngi ziare ñëpp di ñëpp jàmm.

ngeen bàyyi seen poche de sàcc ngi ci biir. Haydi haydi haydi! am ngeen ndam de am ngeen ndam barke Serigne Bamba ku daan kaw ngeen yéen a jëfe digalam Serigne Sall ñëpp dem digalam Serigne nii rek dama rek yow yéen dem leen rek Akia na dem waay.